الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإحسان وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركات الله تعمنا وتعمكم ومن فيكم ومنكم وإليكم إلى يوم الدين بك أوديتر أوديتريسي نيجي سنت الله سبحانه وتعالى تمباري من خير واليمن دفل تبارك الله لجل سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام دنيان يالله سبحانه وتعالى مدل بركة أنقرمم تصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اكتسوا يسر مولانا الشيخ سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه وإلى كافة أولاد الشيخ وخلفائه ومقدميه وجميع أشياخنا وإخواننا خيرا اللهم ارضهم وأرض عنا بجاههم عندك رضا لا سخت بعده أبدا تبارك الله قلنا وسنت يالا أقرم يالا أقجل لي أكسل من شيئا شيئا محمد نجي زيارة بقيب دلين دوكيل تأجمجي بأن يرى سبحانه وتعالى مدفن التوفيق نيغا ام بيكتي لول سؤال تبربي بربي غير بكي غا خمنتني تبارك الله نيغا سافو اميشن بيني وقتان جار جار شيخنا سيد احمد تيجان الشريف الفاطمي الحسني رضي الله عنه تبارك الله نين دوكيل دي زيارة تيرنو حامد يربان مامي برام كرغي أقبالي من ينك تغناوام دي كنيانا ليالا سبحانه وتعالى دي نيانا ليالا مبالي حجاج بيت الله الحرامي يلنا يالا ننقل لين سنة منك حجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور يالا دلو سوات لين يوم نيب ندم ندلو سوات تجمو mu ñu fekk ñu ci jàmm tabaarakallahu gannaaw aj bu yàlla nangu aljanna rek mooy payam yàlla nañ ko yàlla defal defal ko mboolem julit ci di ziyaara di nuyu suñu directrice xaaja ñimma ba di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala tawfiq ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi ci technique bi yéen a ngi ak seen mbokk Cerno Samba si tabaarakallahu دميو دي زيارة خلفاء الشيخنا سيدي أحمد تيجان ينكتي عالم بيب رواتنا نجابات ببم سيدنا سيدي عبد المطلب سيدنا سيدي علي حيدر سيدنا شيخ عمر سيدنا سيد طيب أكبالم أولاد الشيخ سيد أحمد تيجاني تعالم ما خم ننك فاس ما ينك ننك عين ماضي ولا ننك تيلن قوخي تأدنبي فتبارك الله أحسن الخالقين نون lañuy زيارة Thierno بشير تال نون lañuy زيارة شيخ Sidi أحمد Tidiane به ci Medina Gounass دي زيارة مولاي الشيخ الحاج عبد العزيز سي الأمين تتواون زيارة الحاج عبد الله نس تلونا زيارة مولاي الشيخ سيدي أحمد تجاني نس تمدنا باي زيارة الشيخ سيدي أحمد تجاني سك تي تنبا زيارة آه، سيد سرين منير وجقن تكمم الحاجي زيارة مولاي الشيخ سيدي محمد المنصور صال ابن مولاي الشيخ الحاج ابن عباس صال اتجاني أك أي رقم يب تبارك الله بايوما بنكرو مولانا الشيخ تجاني تي سنغال موقم ني نك فوتلا موقم ني نك سالم لا بايوما نك كر الحاج عمر نو بايوما نك سوكون bàyyuma ñu nekk Fuuta Wuro Maadiyu Gede bàyyuma mboolem gox yi ci Matam fépp rek ci Tambacounda kër Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane yi bàyyuma Chérif euh, Yunus Haydara ca fële ca Casamance tabaraka allahu ak mboolem këru Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane yi xataa ci Dakar xataa ci Ndar ba aalam bi fi ñu nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu leen wàccee képp kenn ku nekk ci ñoom seen wàccuwaay auditeur auditrice tabarakallah dañuy fàtte alxaaji ñang dañuy fàtte ndongali gay dañuy fàtte alxaaji malik gay dañuy fàtte mbooleem auditeur yi cerno Diallo tabarakallah Mouhamed sar dañuy fàtte Mouhamed Diop tabarakallah di auditeur yi nga xamante ni ñi ngi safoo lool safina incha allahu taala ñi ngi wax ni naay teel a fàttali numéro bi ndax am na ñoo xamante ni bëgg nañ koy jàpp numéro bi mooy 88 628 10 95 loolu mooy numéro rajo bi incha allahu taala ku bëgg a dugg foofu ngay jaar ci émission bi 88 628 10 95 am na ñuy wax ne aussi nañ leen jox suñu numéro ndax ñu ngi jokkoo ak ñun incha allahu taala ci euh, émission bi ngir ñu taxawal kuréelu Mawlana Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane boo xamante ci défendre 77 643 38 32 boobu Moy orange bi 77 643 38 32 bu dee tigo bi 76 531 73 16 76 531 73 16 تبارك الله نيون اكيين تلاتر مولاي شيخنا سيدي احمد تيجان مي لاتر بو غدو وخنا ني لاتر بي دالن تي ام اي ايميشن يو باري باري موي نيميرو 44 لاتر كاران كات تي من رسائل الشيخ سيدي احمد تيجاني لاتر بي بو ني تيري المختارات من رسائل الشيخ دينا نفك نبابو نمرو 44 اكتوال ماني ماني تي باج 206 ماني تي باج 206 تي مختارات من رسائل الشيخ كو ام تميت بنين تيري بو خامتاني لاتري شيخنا سيد احمد تجاني بي نيك تي مون غاما توب ان شاء الله تعالى ندم دم نان لي شيخنا سيد احمد تجاني واخون تي لاتر بي باسي تي درس بي مو اندي وون ايات القران يين جانغون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين بنك سوره العنكبوت ويا مولانا شيخنا سيد احمد تجان من رابعها اتباعه صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل وحركة وسكون ننتل بمودن توب انتي على محمد صلى الله عليه وسلم ci mbollem wax yi wala ci mbollem jëf yi wala ci yëngatu yi wala ci dal yi mu indi aya alquran mu ne qaala taala wattabi'uhu laallakum tahtadun wattabi'uhu topp leen ko yenen yonent yàlla muhammadin alayka salatu wassalam laallakum tahtaduna mën am ngeen jub su ngeen ko topé waye la shakka fi dalika ni su ngeen ko topé rek ngeen jub gis na damiru hubi mo delu ci ci yàlla muhammadin wattabicu صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون من خامسها الاعتصام بالله عز وجل قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم مولانا الشيخنا سيدي احمد تيدان ميغي اندي اي بابو نا خامتاني داني ويكو سوني مبير ييب تي سبحانه وتعالى يا كاركو موي تي موم جابتي موم بو دغر امونو كوني سكنكو تي لن كوني مانا ديمبالي كودول يالا سبحانه وتعالى مو اندي ومن يعتصم بالله يا كرناني اي بابو ليرالون ننكو وقتي سبب نزول ياك ييغا خامتاني موم موتي ادوان ني نيو نك سي ورا تامبالي واعلم أن تقوى الله عز وجل فيها خمسة أمور مولانا الشيخ سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه من يعلم خمل أن تقوى الله عز وجل قال يلا وات يلا سبحانه وتعالى متد ممق مرمي moom dafa am juróomi فيها خمسة أمور umur في كل صعب والمخرج من كل ضيق والمعونة الله عز وجل بالإعانة في كل مطلب والفرقان وهو نور في القلب يفرق بين به بين الحق والباطل والعلم بما لا يعلم قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا مولانا الشيخ سيدي احمد تداني رضي الله عنه منيب juróomi mbir yi nga xamante ni dafa nekk ci ragal yàlla nga xamante ni boo ragalee yàlla rek yàlla defal la ko mu ni yassara yàlla dana la yombalal fi kulli sucbin ci mboolem jafe-jafe yi su fekkente ni dangaa nekk ci jafe-jafe rek ragalal yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala moom lépp lu yomb mu indil la ko dàqal la jafe-jafe واي والمخرج من كل ضيق يالا مولاي جنني تي مبالم خط خطي يا كنا سما موك ادم تنكر مين ماي دغ نتري لما ديمب ما شاء الله تعالى امبير مو ام صلو تي بن طالب الشيخنا سيدي احمد تيجان boo xamante ne ragal na yàlla di teewee mbalaanu wadifa yeeg di teewee mbalaanu xadratul jumaa yi mu nekkoon ci xat-xat yàlla subhanahu wa taala génne ko ci sabab bi nag mi ngi jaaree ci sayidna adam moom may wax yàlla naka yàlla barkeel barkeel njabootam bi jaahi sayidna muhammadin alayhi salatu wassalam moo tax taalibi tijaani bu leen ti dara ragalen yàlla subhanahu wa taala kom ni len ko Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane jàngale ngeen def tariqa bi seen way ngeen xool yàlla subhanahu wa taala lim len dencal te yàlla wax na ci alquran te lum wax dootu ci delu gannaaw mukk te koy def neena wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja mun wal makhraj min kulli dhiq yàlla subhanahu wa taala dana la ci génnee ci mboolem xat-xat yi والمعونة الله عز وجل بالإعانة في كل مطلب يالا سبحانه وتعالى مولاي ديمبالي مولاي ديمبالي بوبام تين ديمبال لي غاي سوخلا تي مبولم تاكو تي في رك خمغا يالا دا واخ ني نون ني ديمبالانتي تي سوني بير وايي نون بالا ني ديمبالانتي تي سوني بير يالا سبحانه وتعالى مومو ديمبالل ني بوبام سو فكي راغال نانكو تبارك الله الفرقان وهو نور في القلب يفرق به بين الحق يا الله سبحانه وتعالى مومو جنيتي جل لير dugal ko ci sa biir xol bi génnee ci lépp loo xamante ni dafa nekk neen mu leeralal la ko ba mu ba mu ba mu ba mu leer dafay nekk leer ci sa biir xol bi boo xamante ni leer googu dafay ñëw taqaleel la caaxaan ak dëgg mu indi la dëgg tegal la fi taqale caaxaan yóbbu fële moo tax mu ne yufariqu bihi bayna alxaqi wal batil yamu ci de mawlaana cheikhna Sidi Ahmed Tidiane nee na wala ilmu bi ma la yaalamu te da tamit di nga xam loo xamante ni yow xamoo ko woon gis nga so gisee munkiruna yi kat yi tariqatu ahna sid ahmed tidiani ñi koy weddi ñep bo xolé ay alquran mo len mo len mo len mo len jam bal kadabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam yatihim tawiluhu bal kadabu bima lam yuhitu bi ilmihi am la loo sen xam-xam agu ci rek ñu weddi ko parce que amuñu xam-xam moo tax ñuy weddi lu nekk moo tax ñuy weddi tariqatu cheikhana sidi ahmed te li ma wax ni alquran bal kadabu bi ma lam yuxiitu bi ilmihi waaye ñi nekk ci biir tariqatu cheikhana sidi ahmed tidiane ñu ragal yàlla subhanahu wa taala yàlla moo leen di jox xam-xam xam-xam bu rëy boo xamante ni loo xamante ne xamuñu ko woon te du xam-xam nag yu ñuy jàng ci téere yi xam-xam bu ñuy jàng ci téere du xam-xam xam-xam baa ngi ci dënn góoru yàlla yi te xam-xam boobu nag la ñuy wut moom la ñëpp wax moom la ñuy tuddee ilmul leduni te incha allahu taala mawlaana cheikhna Sidi Ahmed Tidiane ñu wax ay dalail ci biir alquran di qaala allahu taala mu ni wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja ku yëpp képp ku ragal yàlla subhanahu wa taala yàlla moo lay defal sovetage benn prox ndollu rek nga jaar fa rek génn ci jafe-jafe yee ak xat-xat ak yëpp tabaarakallah benn aayaa ngoog xoolam waxaat feneen mu ni wa qaala taala inna allaha مع الذين اتقوا والذين هم محسنون mu ne wér na ni yàlla subhanahu wa taala inna allaha inna allaha xam nga inna xarfu tawkid la wér na ni yàlla subhanahu wa taala maa alladina taqaw mi ngi ànd ak mi ngi nekk ak ñi nga xamante ne ñoom dañ koy moytu lépp lu mu tere rek ñu bàyyi ko lépp lu mu santaane ñu def ci seen kémtalaay kattan waaw kay mu ni walladina hum muxsinun gis nga de ñoom gaay yooyu ñoom ñooy rafetal نفتلنك منوتي جني تالي شيخنا سيدي احمد تجاني قالنا ابو نيرا قال يلا نيجي جيم ووت مرافت نيصل لولو نياك نياك ñingi ngi jéem mbud wut dàll bu baax ñu sol lu nakk ñàkk-ñàkk ñi ngi jéem wut mbaxana mu baax mu rafet ñu sol lu nakk ñàkk-ñàkk ñi ngi wut parfum ñi ngi wut socc di socc ñi ngi wut nangam ak nangam te boole wuñ ci nag ngistal wala génn ci mbedd yi foo leen fekk ñuy koron-koron yi di tànqal nit ñi wala ñuy tilimal nit ñi la hawla wala quwata illa billah xam nañ fan lañu war a soccoo foofu la ñuy soccoo waaye doo leen fekk rek ba ci biir jàkka yi sax ñu dugg di xasawal nit ñi la hawla wala quwata illa billah duñ ko def رضي الله عنه شيخنا سيدي أحمد تنيا وقال تعالى وتعالى من وح بنان وح من إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اسكي يلا سبحانه وتعالى تليكت من سورة الأنفال بيسان من إن تتقوا الله سفكي رجل يلا رك قاي قاي نني رجل يلا رك من يجعل لكم فرقانا أي مخرجا ولم يغرى يلا يلا سبحانه وتعالى مولين دي وتل فين فنو جن واي بن بن سيفيتاج بن نيمبل بو خمتن دي جوجيتي يلا ليب اي دلائل لا ي شيخنا سيد احمد تجاني دون جوهي غير وني بعد يم واحد خمسه خمسه امور يي مام لا جوهي بن بو تي نيك دلائلم تي القران مو اندي بو مجي بنك مو ني واتقوا الله ويعلمكم الله من رجل لين يلا سبحانه وتعالى يلا خمل لين قم خم بو قمتني خمولين كون مو علم اللدني مو علم المعرفة بالله مولانا الشيخ ناسين أحمد تجاني ميقرانو مني ومن أراد إن لم يكن للشيطان عليه سبيل فعليه بتصحيح العبودية لله عز وجل والإخلاص الحاجة نعم غير واحد نسسلم إذا فهم توحيد دفهمونا جانجل التوحيد tay nga deg tay sa serigne bi jangale mu leer mi nga xamanteni mom lay wax neena wa man ara mom cheikh nasir ahmed tidiane may wax de muni wa man arada an la yakuna li shaytan alayhi sabil kep ko xamanteni dafa beug ni shaytan du am ci mom ben yoon bu meuna jaar ci mom fa alayhi bi tashih al ubudiyyah lillah azza wa jalla wal ikhlas kok nak mang koy dénk الله أكبر تي مولاي الشيخ فعليه كوكو ورنا تيموم مانكو يدنك مجابلان تسلل ببواخ جامو جمي جامو يلا سبحانه وتعالى عز وجل وتصحيح تمو ويرل لنا قمنتني مملي مملي جامو موي مسلل جاموغا ويرلكو مسللكو لومي داف رك نجم يالا جي تاخ خنا شيخنا سيد احمد تيجان بو يامون في رك دوينا ومن أن للشيطان عليه سبيل فعليه بتصحيح العبودية لله عز وجل والإخلاص خلان بري في ليا شنا تجاني لتح لتح يمول في وهي مي بغا دول طالبي رك كيب كو خمانتني نمنا بغنا ني شيطان دو ام تي موم بن يول شيطان دو امتي تي موم بن يون بو خمانتني دنا فو مانا جار غير جاخ جاخال اي مبرم ولا يقال كو ولا نرا مانكوي دنك ورنا تي موم موم mu sellal jaamu gi muy jaamu yàlla al ubudiyatu wax lillahi azza wa jal mu teg ci lan wal ixlaas mu sellal yéen taalibe tijaan yi kan moo leen gën a sellal yéen ñi nga xamante ni fajar ngeen di yeewu ñëpp ngi nelaw ñu ëpp ci réew mi ñi ngi nelaw yéen nga ñu bari nag am na ñoo xamante ni nee nañu ñoom dañoo fonk jàkk dañuy ñëw nga gis leen ci jàkk ji ñuy bëbbali óbbali dañuy óbbali rek ñenn ñi nga gis imam sëlmal ñu jóg dem ci gannaaw di wax dañuy julli seen ñaari rakaay fajar te yow li nga jàng ci ngir imam malik ibnu anasin mooy boo jullee ci mbooloo mi ba pare waroo julli ci saasa ndax waxtu woowu dañ ci sibku ci naafila lan ngay def da ngay bàyyi fi zawa tuqda bi zawaali la ngay wax ibnu ashiri an tuqda bi zawaali rakaatal fajri yooyu ngay nga rëcc la julli ko ba nga ba zawal jotee ba jant bi génnee tuuti ba dem ba ci kanam nga soog a julli ko waaw kay lii la cheikh tidiane di def cheikh tidiane nag ni la kaay yow sama talibe bi ñaari rakaay ay fajar na la fek nga tok bu ko tarde mukk o illa nga delo ma sama kurus xam nga ni kay selal kay jam yàlla gi muni wal isti'adatu billahi azza wa jalla عند الإحساس بالشدة مولانا الشيخنا سيدي أحمد تجان nee na bul yem ci sellal rek de bul yem ci jaamu yàlla de wal istiaadatu billahi azza wa jal na laqatu ci gannaaw yàlla di muslu ci moom mu musal la ci seytaane mi nga xamante ne noon bu bon la dégg nga de wal istiaadatu billahi azza wa jalla inda al ixsaasi bi shiddati na ngay muslu ci yàlla nga laqatu ci gannaaw yàlla ci yëg-yëg yi nga xamante ni yëg-yëg yu tar la loo mën a yëg rek dalu dawal dawal dem ci yàlla bu fekkee feebar la bu fekkee nattu la bu fekkee nangam bu fekkee nangam dawal rek laqatu ci gannaaw yàlla kii de yàlla la ñu jaamuloo kii de yàlla la ñuy sàkk ñu muslu ci moom ndax yàlla moo ñu mën a muccal kii mooy suñu sëriñ ñun kii mooy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mu ne wa tasxiix al iman waye nak na nga wéral sa gëm gi nga gëm yàlla subhanahu wa taala ci tey mawlaay cheikh wa tawakkul ala allah azza wa jal nena na nga wékk sa mbir yépp ci yàlla da ngay def tawakkul ala allah gis nga wa man yatawakkal ala allah be cheikh ali ahmed yaa daf la ko feddil watal nena sa lépp mom wékk ko yàlla ndax yàlla moko am talibati yar yàlla kessa lay ñaan xam nga dafa am gaay ndaysan seen ñak dégg wax yenn saa yi kenn dina ñëw di waxanteeg yow nga daal di koy ñaanal yàlla nga ne ko yalla yàlla may la nangam ci barke alquran dégg nga de danga nga ne ko ci barke alquran alquran am na barke wala amul barke ñaata doomu aadama ñoo nekk ci kaw suuf si tey teraangay alquran tey ci la ñuy tedd loolu barke la tudd waa ji nag ñëw di waxanteeg yow ba ci yàgg nga ne ko barke alquran loolu du ko def léegi yow ñu ne la da ngaa shirk billah mom nangu nga ñaanal ko ci barke alquran mu wul nga wax ni barke alquran bi ni ni kenn xamul lu ñu doon seen ñàkk xam-xam seen ñàkk dégg la hawla la quwwata illa billah léegi nit ñëw bëgg bi nga bëgg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bëgg bi nga bëgg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane fonk gi nga fonk Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ndax lan ndax wali yu yàlla la kaamil la shakka fi dalik borom xam-xam la kaamil borom xam-xam yi xam nañ ni borom xam-xam la xam gi nga xam ne riif la surtout yonent yàlla muhammadin la sallallahu alayhi wa sallam tey qadima jaxatika la mu ne xawa sharafu tiini xaysu intisaabuhu li fatimata zahraai bintu muhammadi xam gi nga xam loolu nga toog benn waaye ñëw ni la yow kat damaa bëgg nga may ma nangam ci barke Cheikh Sidi Ahmed Tidiane nga jël nangam boobu jox ko ndax li nga xam barke bi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi am waa jooju ñëw bëgg nga mayaat la nga ne ko barke Cheikh Tidiane du ma la ko may ñu ne da nga giñ ci leneen lu dul yàlla ndax ñàkk xam ah dañoo dof rek waaye senatiyaan de ñun lii lañ jàngal wa tawakkulu ala allahi azza wa jal qala taala innahu laysa lahu sultanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun cheikh tijaan moo layal boppam de mu ne innahu wér na ni gaay yooyu laysa lahu sultaanun cheytaane amul ci ñoom benn cër cheytaane mënalu leen dara ñu ne ñoom ñoom ñooy ñan mu ne ala alladina amanu mooy gaa yi nga xamante ne ñoom dañoo gëm yàlla subhanahu wa taala wa ala rabbihim yatawakkaluna ci seen borom rek la ñu wékk seen mbir yëpp cheytaane mënalu leen dara waa ku cheytaane mënalul dara koo xamante ne yow cheytaane mënalu la dara ndax sa ragal yàlla yow di nga def loo xamante ne yàlla du ci kontaan mais gars yi est gars yi du ñu réfléchir réfléchir baxna de di xalaat di xool ayatul qur'aniya yi ni ko yàlla waxee yàlla yemul foofu te si yàlla aaya bi kese mënoon na ci dëgg daa di bañ a indi beneen wax waaye mu ni inna ibadi laysa laka alayhim sultaan la ilaha illa allah inna ibadi damir bi da koo delloo ci boppam moom yàlla mu ni wér na ni sama jaam yii ñu ni ha laysa laka alayhim sultaan yow seytaane laa wax amuloo ci ñoom ñii benn cër mënaloo leen dara amuñu lenn loo leen di digal wala loo leen di tere man yàlla mi leen bind moom leen man la ñuy jaamu man la ñuy déglu sama sama ndigal moom la ñuy def te taalibe Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane lii la ñu jaayante ak yàlla lii la ñu waxante ak yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lii la ñu waxante ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mooy duñ la jaamu yow Cheikh Sidi Ahmed Tidiane gëm lañ la lool waaye boo ñu waxoon tey ni nañ la jaamu fan fii lañ lay bàyyi te wallahi duñ ko wax wallahi duñ ko wax maa ngi mës a déglu benn waxtaan ci Cheikh Alhaaji Mansour ibnu Seydi Aboubacar Sy mu ne Mbaye Donde mii tey jii su ma ñëwoon ni ko Mbaye Donde léegi julli gi wàcceel naa la ka koor gi wàcceel naa la ko léegi bul woorati bul defati dara def naa ma seriñ sëriñ bi daal di génn su génnee daal di ni sama waa ji kat dof na nee na loolu lay wax nee na da heure julli jot mu dem julli ji koor gi bu ñëwee mu woor di wax ne sama waa ji kat dof na ñaanal leen ko yàlla Cheikh El Hadj Mansour maa ngi ko dégg ci làmmiñam am na ci yéen ñu bari ñoo xamante ni dégg nañ ko suñu sëriñ si nag lii lañ ñu jàngal wallahi déglu leen kasetu Cheikh Ibrahim Niass naka lay diggalee taalibe yi nañ jaamu yàlla. déglu len cassette Cheikh Alxaaji Ibn Abbas sali ñi moy ñi nga xamanteni ay muqaddam yu mujj lañ fi nekkon déglu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz ñi ay muqaddam liñ fi nekkon yo xamanteni sen cassette kaset yaa fi bu fekkente ne sax ñun ñu len bu baaxa baax legi lañu ubbi sen cassette yi ñu déglu ñom lan lañ waxon ñom nak sen baay yi ñoo fi nekkon ño fi indi diini l'islam bi taxawal ko bu baax Cheikh Alxaaji Omar Ibn Saïd al futi mo fi raw ci gaay mi ngi nonu legi nak mën nañ ñu fi indi leneen lu bees loo xamante ni ñun duñ ko xam te suñ mag ñi jaar nañ fi ba pare gars yi nañ ñi may jàmm Cheikh Sidi Ahmed Tidiane de biñ mu commencé ba léegi ay ayatul qur'aniyati laa dégg muy wax waaye xam nga lan la ko tëjee mu ni wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah la ilaha illa allah xam nga seetaane am na ci ñu mu am cër dëgg-dëgg ndax kattan ak rëy bi ko yàlla may waaye taalibe cheikhana sidi ahmed tidaani yi ñoom yàlla baaxee na leen ba suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñu ngi wax audu billahi min alcheytaani arrajim seen laazim ba moom lañ koy ubbee laazim bi nag suba ak ngoon lañ koy def seen jàng alquran ba moom lañ koy ubbee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 mukk du leen bett wallahi du leen bett mukk fa toll rek yaa ngi dégg ñu ngi ñu ngi muslu yàlla yàlla nag ma wax ni inna ibadaka minhum almuxlasin illa ibadaka naam illa ibadaka minhum almuxlasin seenat yaa ni mooy indi ay aaye de moom mooy indi de moom mooy indi ay aaye boppam illa ibadaka minhum almuxlasin cheytaane nag moo ko waxal boppam mun ko ludul sa jaam ya nga xamante ni ñoom dañoo sellal ñoom mën lu ma dara waaye keneen ku dul ñoom moom dalaa not ci seen gëm yàlla gi nekk ci ñoom taalibe tijaan boo xamante ni yow suba ngoon ba bëccëg yaa ngi muslu ci cheytaane ah léegi nag mawlaana cheikhana sidi ahmed tijaan radiallahu anhu indil nañu beneen mbir برنادي بمدان وحسانق نانا نك ومن أراد المحبة من الله عز وجل فهي في ثلاثة نانا كيب كو قمنتنا نفنم دفو بوغ تشافيل تي يالا بو توكي تي يالا تشافيل بو قمنتن دفو توكي تي يالا سبحانه وتعالى وارنا تي موم مو ام نيت مبيري نانا كو شاناتيان بانا بان موني اول محبته سبحانه وتعالى قال تعالى يحبهم ويحبونه mu ne bu njëkk bi mooy cofeel ci yàlla cofeelu yàlla subhanahu wa taala yàlla moo lay bëgg nga bëgg ko nga bëgg yàlla yàlla bëgg la ñaar yëpp am na da ngay bëgg yàlla yàlla bëgg la wala yàlla bëgg la bëggal la boppam yow nga bëgg yàlla nga xam nga bu ñu nekkee xale dañ daan jàng uhibbu llaha taala uhibbu llaha li annahu xalaqani wa xalaqa ummi wa abi wa jamia annaasi wa xalaqa lana taama alladina akuluhu ndeysaan muslimu sagir muslimu sagir ah xale yi ñu ngi koy jàng ba léegi ci daara ji tabarakallah yàlla ni yuhibbuhum dina leen bëgg wa yuhibbunahu moom tamit dina leen bëgg yuhibbuhum danañ ko bëgg wa yuhibbunahu moom tamit dina leen bëgg نار الباء ثانيها اتباعه صلى الله عليه وسلم آه، كبوغ يالا بوغلا دا غاي بوغ يالا سيناتي ياني نياتل بالا نين كلان موني اتباعه توبكو موم من موني صلى الله عليه وسلم وا فال لا ديغي سيناتي ياني فو وخاي ني نانكو توب موم فن امول كين دوكو اندي نك توب لن ما مسلم كو ديغي تي واخو شيخ تيان في كل حركه نيغي توب يونتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم تي ينغتوم يم دان ينغتو wa sukkuunin ak dalam gam daam dal wa qawlin ak waxam jam daan wax wa amalin ak jëfam jim daan jëf wa xaalin ak ci xaalam ba ñëpp jàng nañ ko nag jàng nañu ni yonent bi daan waxee jàng nañu bi ni mu daan doxee jàng nañu dalam ga jàng nañu yëngatoom ga jàng nañu ci moom sallallahu alayhi wa sallam moo ne jël naa sama dund gi may leen ko muy kado ngir yéen ñi gën a xam tariqatu cheikhana sidi ahmed tidiane ñoo gën a xam yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi gën a xam yonent bi ci adduna bi tey jii ay taalibe cheikhana sidi ahmed tidiane lañ la shakka fi dalika waaw waaw ha ku weddi rek dugg ci téere siira yi nga xool gaa yi taalif yëpp yëpp yëpp la ñuy taalif nga xool taalibe cheikhana sidi ahmed tidiane yi la ñuy taalif xata mohamadul busayri gaa yi fi mu nekk nii dañ koo sóoru bu baax a baax bu sayri ak taggam gu rëy ga gaa yi sóoru nañ ko bu baax taalibi tijaan yi sóoru nañ ko bu baax waaw sóoru nañ ko de ku jàng téere eh, eh, eh, nga xam hmm. waaw bu bul tudd na xilaatu dahab bul tudd xilaat dahab bul tudd taali téere maam xalifa ba déedéet bul tudd chara yi nga xamante ne Cheikh Tidiane bul tudd نسان يا من له سبحت من في السماوات ومن في الأرض من أنواع البريات وسرين عباس تا إيام بولت درا إيام بدي بن بيت la ñuy jël def ci lépp loo xamante ni bëgg nañ ko wax ci ci ci mbir بما اصطفاه حبيبا ربه وبما أسرى به الله من سر المناجات لا إله إلا الله قال ني خمي ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم ما دحمني يلا ما يهدى من يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تي شيخ تجان ما عندنا دليل ليك نسفك أنت نيان دعين يالا يلا بقولين تبولين يلا أنت يلا محمد صلى الله عليه وسلم رك يلا بقولين يلا ما يهدى قل وخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم دم يني ها تحبون الله بقولين يلا دعين بقول يلا بقولين نين واموني فاتبعوني تبلين ممن يرنت يالا محمد صلى الله عليه وسلم رك يحببكم الله يالا سبحانه وتعالى بقلين ñun nag bëgg yàlla moo tax ñuy topp yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëgg ñu moo tax ñëpp ñuy topp yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëgg na leen waa ku lay digal ngay topp yonent yàlla muhammad kooku bëgg na yonent yàlla muhammad te na man li ma yéem ci gars yi mooy bari na ci gars yi ma daan woo ay Mouhamed lañ tudd Mouhamed Sarr Mouhamed Diaw Mouhamed Nangam Mouhamed Nangam Mouhamed rek ay Mouhamed rek ngay dégg ñoom ñoo bëgg yonent yàlla Mouhamedin sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñooy ay taalibe Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane bu ñu génnee ñi nga xamante ni tuddee nañu seeni doom yi yonent yàlla Mouhamedin sallallahu alayhi wa sallam waa ko bëggul di nga ko tuddee doom taalibe Tidiane yi tudd Mouhamed bu ñu leen dajale woon ci stade bii tey jii yaakaar naa ni dañu bëgg danañ bëgg a tëj buntu stade bi mu tëleen waxuma ñu tudd Cheikh Tidiane de nga xamante ne Ahmed la waaye ñu tudd Mouhamed rek taalibi Tidiane yi am doom tuddee leen Mouhamed ndax am na taalibi Tidiane bu am ñaari doom yu góor te kenn ki tuddul Mouhamed ndax am na sax ko ko ko bëggul doo ko tuddee doom mu ne thalithuha altaharatu alkamilatu mawlaana Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane nee na ñetteel ba mooy laab gu mat sëkk ah laab nag moom laab <laughs> nag moom laab moom suñ ko waxee senegal fii amoon na jamono ci kanam yàggul dara yàggul dara suñ la gisee ngay jàpp lu bari wala ñu gis la saa yooyu génn tànk da ngay yare satala wala bidon bidon wala satala ñu la xanaa yow taalibi tijaan nga billahi wallahi tallahi te xam naa lan mooy billahi xam naa lan mooy xam naa lan mooy tallahi gaa yi ñu wax ne ñun dañuy gën ci leneen lu dul lu dul yàlla <laughs> ñoo nax seen bopp danañ jàng ba xam lu ñu xam te xamuñu lan mooy giñ ak waat ah te lii ma wax ni ñu bari fekkee nañ ko ñu baree bari ci ñi may dégg fekkee nañ ko boo dee jàpp waxtu julli bu nekk nga jàpp ñu ne xanaa yow tijaan nga buñ la dee gis saa yooyu dem àll ba nga jël satala wala nga jël bidon téye di dem ñu la xanaa yow tijaan nga waaw maa ko fekke ay yoon ci ay dëkk yu wuute ci biir Sénégal gi nag waaw xanaa yow tijaan nga hmm. mu ne ak tahaaratul kaamilatu bu ñu laay bu ñu waxee tahaaratul kaamilatu nag ñu bari dañuy yaakaar ni rek eh, eh, Eh, tahaara bii ñuy jàppaka sangooka yooyu baax na de Cheikh Tidiane wax na ko waaye nag Cheikh Tidiane njëkk na leen wax tahaaratul qalbi moo tax seen mbalaan mi ñuy lal dañ gars yi dañuy xamu lan moo nekk ci mbalaan mi mooy mbalaan mi bokk na ci sirru mbalaan mi weexaay boobu noonu sa xol bi di weexee noonu doo yéene kenn lu bon gis nga taalibi Tijaan bu soxor bu eñaan daanaka amul waaw bu weer at ba bi dellu siwaat def lu bon amul ndax mbalaan ma mooy symboliser sa jëmm ju tedd ji ngay raxas sa xol bi tudd yàlla gi mbalaan mi di la di la fóotal ndeysaan sa xol bi weexaayam boobu mu la koy wàll moo tax mbalaan mi dañuy dem ba ci yaare ñu gis ni mbalaan mi commencé naa tilim ñu dem fóotaat indiwaat comme <laughs> kaabatullahi al musharrafa ga gaa yi dañ koy xool rek muy jël seen bàkkaar seen ñaawteef yi ndeysaan gaa yi xamuñu nag li xew hmm? lu nekk wax nañ ko nag ci suñu mbalaan moom waaye di ngeen ñu ko fi bàyyil ñun xam na lañ jëriñ وهي من كل ما سوى الله عز وجل ظاهرا وباطنا قال تعالى والله يحب المطهرين نانا طهارة الكاملة باب مولانا شيخنا سيدي أحمد تجان دي لواخ نانا مموي نغس دن تلب لدول dul yàlla subhanahu wa taala ci lu feeñ ak ci lu nëbbu dégg nga من كل ما سوى الله تلب لدل يلا تلول غاي دن دن ظاهرا وباطنا تلو فين اك تلو نبو ليك لي لا لا لا باي من قال تعالى والله يحب المطهرين نانا يالا نانا بغنا واي لابني قلت من نانا نك وهذا شيخنا جان مي سوغ واخنا قال بيمكم اسي بليغنا نانا قلت ماني نك من هايلا بروم قم قم بي واخ بني قلت قمل قمنا لمي واخ من وهكذا في طرد الشيطان مع ما تقدم بالجوع من لين ما يدق الشيطان عندك لين يكون وقت يقيف من لقد قال صلى الله عليه وسلم خول من لي اندل بن حديث يعني على محمد صلى الله عليه وسلم من ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق فضيقوا مجاريه بالجوع شيء شيخ اختيان يعني. مني ينشال محمد صلى الله عليه وسلم نانا ويرناني شيطاني دفاي دو تي درتو دوم آدم تي يرم دوم آدم يب تي دوم آدم يب مجرى دم كم درت نمي داوي تي سبير يرم وي تي أمو لارلو تي يك درت ديانج سوركيلي تي يو سوباك نغون قدك بچك شاك انستان نون لا شيطان نون مل تي سيرم وي Samba ubbilal gars yi ligne bi 88 628 10 95 ñu dugg nag commentaire inna cheytaana yajri min ibni adam majra dami naam عليكم علينا وعليكم السلام ورحمة الله الحاج ومن جاي مولاي كيف الحال؟ زيارة زيارة مقبولة والحمد لله زيارة آه، زيارة استمداد مرحبا الله يقبل عبد آه، ساك ونيان مباح إن شاء الله تعالى بني فتن عبد الله نيان يالا يالا قلنا جابل اللهم آمين آه، دي وقت نسري جدال ما شاء الله كين دموم رضي الله عنه آه واحد نيكا نيكا نيكا كونتور نيكا نيكا ديقول لمي واحد تقل تقل هكذا waaw moom dama naan moom làkkul arab alquran lay làkk alquran lay làkk <laughs> wallahi alazim wallahi wallahi alquran lay làkk de mais yàlla yàlla fayal ñu ko allahuma amin waaw mais li ngay li ngay li ngay leeral si moom yàlla xam na ni weesu na am solo sax alhamdulilah waaw weesu na am solo macha allah macha allah taala waaw yal na yàlla jàppale la rek ba ba mission bii nga song yàlla jàppale la yombalal la ko incha allah ba nga egg ni yool yàlla ñu ko yàlla jàppale ñoom ñëpp waaw si barke yonente bi yàlla si jurit ñëpp jëriñu tijaan ñëpp jëriñu allahuma amin waaw lii moom wax dëgg fa yàlla bu koy déglu incha allah ci jub xocc ngay nekk ci kàttanu yàlla waaw la jàppale kontaan nañ trop nañ bàyyi ñeneen ñi dugg incha allah jërëjëf jërëjëf xaaj nañ kontaan jërëjëf kontaan nañ bu baax macha allah taala ñu dellu si ci xadis bi yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon ci itikaaf ndeysaan soxnaam safiyatu bintu xuyey ñëwoon seet si ko léegi nag muy génn incha allah muhammad salaa sallam xool gis ni xaw naa lëndam mu bañ mu génn noonu wóorul mu koy gunge ñaari doomi ansaar daal di dajeeg moom ñu gis yonent yàlla muhammad salaa sallam mi ngi ànd ak moom rek yonent bi daal di daal di leen di woo ñoom ñaar ñu ñëw mu ne leen xool leen ko bu baax safiyatu binti xuyay la ñëpp xam ni ndeysaan soxnaam la waaye ñoom ci saasi rek ñu daal di tudd yàlla ni subhanallah subhanallah yow yonent yàlla muhammad ñu wax ci seen xol bi ba ñu waxee subhanallahi mooy liñ jàpp ñooy xalaatalu ñu yonent yàlla muhammad dara dara luy nuroog Eh, safaan ndax xam nañ ko ci sell ci nangam ci nangam ci laab ci nangam ci nangam yenent bi daal di wax xadis bi inna cheytaana yajri min ibni adama majra dam mu ni doomu aadama yépp nag cheytaane dafay daw ci seen yaram yi ni deret ni muy dawee ci yaramu doomi aadama yi waaye moom nag mawlaana cheikh bi mu ñuy digal daf ni nañu jiital dàq seytaane ci suñu yaram yi ñu bari lu ñuy xiif wala bu ñu xiifee nañu lekk waaye bu ñu lekk ba suur waxoon na ko ci beneen xadis mu ne naxnu qawmun laa naakula xata najua fa in akalna fala nashbi munu ñun xeet lañu woo xamante ni duñu lekk lu dul ñu xiif te bu ñu xiifee bu ñuy lekk duñu lekk ba suur lu tax ndax daf daan séddale yaramam wa séddale xelam ma xolam ba lenn lu ci nekk rek mu jox ko wàccuwaayam bu dee biir bi la da koy jox ñam da koy jox ndox da koy bàyyi genn wàll gi mu nekk ngelaw ñetti xaaj yi la daan xaaj biiram xolam bi nag lépp daf ko acc yàlla subhaanahu wa taala cheytaane amu ci cër adduna amu ci cër doom amu ci cër jabar amu ci cër keneen amu ci cër xolam bi moom yàlla kese yaramam wa nag mu jël ko xaaj ko moom tamit yenn saay mu jël li jox jullit yi yenn saa mu jël li jox njabootam waa këram ci yaramam wa yenn saa yi lii mu jël ko saan noppalu ci tuuti ndax bu daan noppalu sax da ngay dégg mu naan xol bi kat moom ma ngay continuer di liggéey liggéeyam waaye bët yi nag ñoom ñooy gëm mun a am wa alayna wa alaykum salaam naam لباس لباس كيف الحال؟ تيمون فحن برجتي تيمون فحن ما شاء الله تعالى الحمد لله اهلا وسهلا والله سنتي يا الحمد لله زيارة مقبولة والحمد لله ما شاء الله دقلة ما شاء الله اللهم امين nga dul tax nit du di ko waxati. dëgg la parce que yow yaa ngi ji. alhamdulilah. parce que lu ci nekk rek am na période boo xamante ne am na ñoo xamante ne ñoom ñooy jóg pour yëkkatiwaat drapeau bi malgré que mosul wàcc. dëgg la dëgg la. mais yow ci tee flambeau bi yow ci nga bokk. yal nañ ci yàlla boole yal nañ ci yàlla boole yal nañ ci yàlla jàppale. allahumma amiin parce que mébét. allahumma amiin. noonu yi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy noonoo seex. yow ngay wax loo xamante ne chaque jour dinañ ci gën a dégg. incha allah. li ngay wax rek même bu dee da ngay nelaw ni sax. قلبي مو جميل والله بدي بدي مواي قلبي نلول والله والله آه. والله بكون ودي نعمل دريت والله بكتب لي كم كم في انا آه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جرى جف لباس والله ما شاء الله ما من لي ديك ما شاء الله اسكي اسكي اسكي جيبي جيبي ولان Jibi ah, Laay ah, ñu ngi koy nuyu bu baax incha allah ñu ngi koy ñu waaw ñu jokkoo rek xaaj ñu jokkoo rek incha allah taala maa ngi lancé numéro yi ngir que ñu jokkoo def benn benn mouvement bu dëgër waaw bokk bu nga xamante ne bu ñu demee ba nga xamante ne am nañ benn mbooloo mu takku rek hmm. ñu waxtaane bis yoo xamante ne dañuy dajaloo di gën a waxtaane tariqa bi ñëpp xamante incha allah incha allah waaw ñuy jokk ci rajo bi ñëpp xamante incha allah waaw rajo bi ñu ngi koy def mais nag dañuy jël beneen boo xamante nag bii xaasa la pour awlaad pour pour pour taalib Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane joxe woon naa numéro orange bi 77 643 38 joxe woon naa numéro tigo bi aussi 76 531 73 16 numéro rajo bi mooy 88 628 10 95 ku ci jokkoo ak gars yi incha allahu taala xam naa ni ñi moom mooy nekk suñu présidente incha allahu taala bis bu loolu taxawee président Gaye moom ndongali Gaye tabarakallahu am na kuréel bu rëy bu mu jiite ñoom Sidi Xaaji Malick Gaye ñi ngi ci waaye dinañ am beneen xoossa boo xamante ni talaamidi cheikh yi ñoo ci nekk asxaabu cheikh yi ñoom kese ñoo ci nekk nga xamante ni Cheikh Tidiane rek la ñuy waxtaane bismillah السلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته علينا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج عمر نعم جوار الجو كيف الحال؟ الحمد لله سما خلينك يا سانخ وليقي على سيدنا يلا خملني ما ما مرحبا جوار ما شاء الله دقلوت من ايميسيون بيعمل الطلب ما شاء الله تعالى ما شاء الله علينا ما هو مملك ودقلوت دقلوت ما شاء الله بخشيط انا مم بيدا nit comme ni service wallahi loolu moom yàllaa ko may pouvoir bu keroog bu ñu koy génnee aljana daf ko bokkoon ci lim ko ñaan yàlla ba yàlla may ko ko dëgg la dëgg la mais nag yàlla dafa am dafa am daf ko amal limite daal dëgg la illaa allah al-muxlasin yàlla am na ko limite ñun ñi nga xamante ne bokk ci njabootu ci Ahmad Tijaani moom daanaka yàlla muccal nañu alhamdulilah képp ku ci bopp rek nga xamante ne di sa njàmbaarte ne dugg nañ ci yàlla la ko may dugg nañ ci inna ibaadi laysa كونتان نانكو با يالنا يالا كونتان جوار يالنا يالا كونتان يعني كنت مام رضي الله عنه كاو تفلا نعم والله boo soppee seex waxul nga doon taalibe sopp rek sopp rek dee nekk kon nag mi doo dee mukk te nekk ko aarif billah lool lool lool loolu question la ma ci incha rek doo dee te nekk ko aarif incha allah doo dee mukk te nekk ko aarif wallaahi dëgg la hakada hakada hakada hakada incha kontaan nañ yàlla yàlla amin amin amin waa rajo bi yëpp ñu ngi leen di bëggee sàmba tabarakallahu liggéey bi rafet na yal na yàlla barkeel ñu jox dig daje incha allahu taala ba ajuma ji bii di ñëw bu leen fàtte tamit di ñaanal xujjaaj yi jamono bu nekk ñu leen di ñaanal yàlla yàlla yóbbu leen ci jàmm delloo si leen ci jàmm wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu